yàgg nañ ko laajte xam ñu nekk ci biir mën ko am à temps donc dossier yooyu normalement dans une démocratie qui fonctionne après une élection autour de l'administration des élections la direction générale des élections le suñuy expert yeeg chargé chargé des questions politiques mën na toog waxtaan ci tiré ci ay leçons def ay réformes loolu la Sénégal xam depuis 92 loolu dafa war am yàgg na mais yooyu yëpp Macky Sall faalewuñu lu ko intéressé mooy habillage bu mu togg ci guddi ba pare bëgg ko jaar jàllale si troisième dialogue politique bi euh, loolu euh, ci loolu lay liggéey ci loolu la nekk loolu nag ñun mënuñu cee ànd tey mënuñu cee ànd ëllëg parce que ñun kenn duñu nax